أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة أيها الصادة ñu ngi leen di nuyu fi ne daan nuyoo aljuma bu ne ci seen émission xam sa diine di nuyu fadilatu cheikh Thierno Hamidou di ko ñaanal ni ñu koy defee saa su ne rek yàlla dolli ko sutura yàlla defal ko wér tawfiixul ilaahi ba ay naalam yi mu naal ci diini ci mbokk yàlla jàppale ko ci bu baax a baax a baax axit ñépp ñi mu ci àndal ci ñu jege ak ñu sori ñu fés ax ñu fésul te ka nekk ci bopp ba di fadilatu cheikh Thierno Bachir alxalifa yal na ko yàlla sàmm mu yàgg ñoo gunge yàgg ñoo wéttali incha allahu rabbi defal ñu ko ñu ñëpp di nuyu waa safina saadaat góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu as sayda ñu ñi mu newal fii ci rajo bi ñu wàllu technique ñi ci wàllu information yëpp animation yee yëpp yal na yàlla defal leen tawfiix defal leen ay promotion yu kawe lool lool lool di leen ko ñaanal ak képp ku fi mas a jaar ak képp koo xam ne incha allah it yàlla dogal na ne fi jaar ëllëg di nuyu suñu wayjur alxaaja ku ma jaani saar ñaanal ko ñaanal njaboot gi wér sutura daa iman yàlla sàmmal ñu ko di ñaanal suñ papa El Hadj Abdoulaye Diop fils Skater di ñaanal waa Skater ax lu ko wér muy amu muy xaadim shelter fu zorol kona chap ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax dëkkandoo yi Adja Raki Adja Mari Fat Badji ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mag ñi nga xamante ne ñoom rajo bi mooy seen wettal ñoom suñu wettal lañu ajaamay Adja Maymuna Diouf maire Ndioufa macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar saa yoo ko déggee rek lu jëm ci diine ci mbokk rek lay wax di sopp lool ceer no gis rek mu ngi laaj nu mu def kay nemmeeku ak képp ku mu xam ne it yaa ngi tax ci Thierno rek mu ngi lay bàyyi xel niki noonu na Nogay Fall mu màgget Diop kon nag maire Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ñaanal gudd fan sutura su sax daa iman moom rajo bi rek lay wéttale ko loolu moo dal suñu mag ñi Pape Amadou Sow Pa Warga Wan El Hadj Baye Ngala Dia El Hadj Doudou Seck fële ca Liberté El Hadj Yoro Ndiaye di nuyu it al oustaz Assane Mbengue oustaz Moussa Balde ñi nga xam ne ñoom it daa iman ñu ngi teewlu oustaz Moussa Balde it xam naa ne ñàkkul aljuma bi di ñëw wala bële si topp it incha allah dina fi ñëwaat. ndax rajo bi miin na ko mu ñëwaat waxtaan ak ñun incha allah rabbi ci wàllu diini El du Doudou Seck liberté yëpp macha allah ñu ngi lay jaajëfal am na mbokk mu fay jokkool moom it mu ngi bëgg lool ci sa dugg dëgg yàlla yann yàlla sàmmal ñu la macha allah. waaw Amadou Sow ñoom it mu ngi nuyu ñëpp nee na bàyyiwul kenn kenn kenn ñu ngi nuyu secrétaire Fatou Bour moom it comme ni ngeen ko xamee rek bu ngeen déggee baat bi mu ngi leen di dégg su ngeen déggul baat bi it mu ngi leen di dégg mu ngi toog di teewlu ñëpp léeg-léeg sax mu dem ba xër jàpp ko mu bëgg a yëkki téléphone bi wax doon tele am na ci ngànt waaye ngir xër rek cofeel ndax xol bu sedd ci kàddu yi ngeen di yëkkati ak waxtaan yi fiy am waaye moom daal mu jël lépp rek delloo ko yàlla di leen ñaanal jàmm sutura tawfiixul ilaahi mag ñu mel noonu eh, yal na ñu leen yàlla sàmmal paa go wan wallaay kazalika nekki noonu mag mu baax mu yiw mu sopp ceerno mu bëgg ceerno su waxee rek nga xam ne ah paa warga macha allah ki noonu El Hadj Baye Ngalla macha allah moom it soo ko déggul it njaboot gi danañ dugg kon nag loolu mbégte la mu ngi nuyu Keebaa bu baax macha allah. di ko ñaanal tawfiixi ilaahi di nuyu waa hôpital Abass Ndao waa réanimation jox naa ji bi nuyoo mu nuyul ñu leen tonton Souleymane Kandji madame Kane ak ñi fa nekk ñëpp di nekk en service ñu ngi leen di nuyu nu ki noonu waa Philippe Maguilène Senghor Baba Aïda nuyu ñu ñëpp macha allah mama Saxaaba Diop soppe yi Fat yi ñu ngi leen di nuyu sa Adja Issa Fall moom it macha allah ci ñaan yeex teewlu gi ànd rajo bi rek macha allah Abdoulaye Sarr Ginte ñu koy nuyu bu baax a baax El Hadj Baye mu ngi lay nuyu di la ziar Libaas Pape Mor ñoom ñëpp ay soppe lañ koo ci déggul rek jot gi ngeen di ziar Pape Mor ma macha allah ci taxawaay bi. Moulay Abdoul Aziz Mbengue ñu koy nuyu fa ñëpp Pape Assane Gueye macha allah di ko seet di ko ko ci yaram wi macha allah soppe la ci rajo bi. suñu soppee bopp la macha allah moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli wér bu baax di nuyu al imam seeni di nuyu njaboot gi yëpp ajaara ki ziyaaral ñu Mouhamed ziyaaral ñu ñoom ñëpp Alioune Mbengue ña muy toogal fële ci daara ja sandinaat ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ak nekk ci mbaari géej gi di teewlu soppee fa nekk yëpp maa ngi leen di nuyu góor naar sec ñu ngi koy ziyaar bu baax moom taximaan yëpp jël nuyoo di ko ko jox képp ku nekk ci tali bi rek ndëkk gornaar ñu lay ziar bu baax a baax Ibrahima Sila Dia yof nga paru imam Ousmane Faye al aima wal ulama kolleja mu jutal ñu nuyoo njabootu El Hadji Baye Ngale gépp Aminata Sow ñu ngi koy ziar Abdou Sarr di soxna Binta Mbaye Liberté 5 moom it di ko ñaanal bu baax di kontaan ci ñaaniñ jël nuyoo soppe yëpp di ko jox El Hadji Malick Guèye ndongali Guèye Malick Ban ka Malick si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar soxna Astu Ngom Padois Marème Ly Rahma Anne si ñaan yi jërëjëf ya may Diallo a Jaw HLM ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax yal na yàlla fay leen fu ngeen mën a nekk rek dëgg yàlla ñu ngi lu ànd gi ñuy ànd ak yéen soppe Safina soppe rajo bi di nuyu ñu fi def waxtaan ñëpp jël nuyoo di ko jox euh, imaam Moussa ci doyen yi ci mag ñi El du Doudou Seck mu ngi lay nuyu lu bare bare bari karoog rek maa ngi koy wax sàmb moom daanaka émission yi comme soppe yëpp rek duñu ko rate wallaay sopp na la lool ndax wax ji tee ji ju dal ji ju mën a euh, delloo sewaat nit loolu nag zalika fadlullahi te nee na bu laa gën a bëgg rek euh, nga dem ba émission bi di sori ceer na fekk se la ngeen di waxtaan te lépp nekk diine ci mbokk yal na yàlla saxal loolu macha allah moom laa waxoon ma ne Thierno émission yëpp mën na ci dugg waaye daal nañ ko bàyyi dëkkandoo jàmm sa gën ndax foofu bu fa duggee rek dugg na ci émission yëpp macha allah Imam Moussa yan na ko yàlla fayal ngi nuyu ñëpp nag bàyyiwuñu kenn El Hadj Omar Diagne mi fi génne léegi macha allah ci fasaaxa bi yal yàlla wéral baat bi bu baax a baax a baax yal yàlla sàmm ñëpp. dolli seen sutura ñi fi waxtaan daal macha allah yal leen yàlla sàmmal koo ci déglu rek eh, wax dëgg yàlla da ngay bëgg loolu safina la kon nag safina rek ci kanam ilal amaan safina boobu nag macha allah du gaal gi nga xamante ne barza la wala war barzax moom gaalu saada la waaw gaalu saada gaalu texe la gaalu mucc la incha allah boo ci yégee di nga mucc ilal amaam ma al axlaax ndax axlaax mooy lépp mooy jikko innama bu'istu li utammima ma al axlaax kon nag safiina gaal googule boo ci yéegee rek fa ngay teeri mooy fu neex boroom bi neex say mbokk neex say dëkkandoo neex say am di jàmm kon nag gaal gi safiina boobule mooy xam sa diini ñëw tey ji macha allah di jaajëfal ñépp nag ci teewlu bi ci fi ñu toll ci réew mi it ñu ñaan ndax mbas mi ku ne gis na eh, mu ngi fi bëgg sax ndëkk waaye waxuñu sax gi yem ci waaye demoon bañ naan ah ñu ngi tàggoo ak moom yàlla ñuy defal sutura waaye mu mel ni mu ngi yeewu waat yàlla daal ñu ngi lay ñaan nga musal ñu ci musal ci àddina bi yëpp xettali ndax liñ jot dund ci ay weer juróom-ñett juróom-ñeent ba fukk tar na lool waaye yàlla bu ñu ci saalit ndax jullit du saalit ajaban li am amril mu'min moom la yonent bi waxoon su dee xéewal nga sant yàlla mu dolli su dee safaan nga muñ yàlla wuutal la lu gën loolu moo tax ñuy ñaax ndaw ñi nañu góorlu am confiance ci seen bopp yonente bi sallallahu alayhi wa dafay wax ci benn xadisam mu ne jullit du doyadil boppam jullit du doyadil boppam te yooyu bokk na ci ngay def luñ la xeebe doyadil sa bopp la ñàkk gëm sa bopp doyadil sa bopp la bëgge ba mu ëpp doyadil sa bopp la muy xér jullit dafay nekk ku digg doomu ku yeme mbaay ku xam boppam doo rëy waaye lu ñëw rekk danga koy delloo ci borom bi subhanahu wa taala jullit du xeeb boppam du def lañu koy xeebe faggu mbokk yi lislaam lu mu digle la nga jóg di yëngatu di liggéey daan sa doole waaye def ko ci anam bi mu rafete mbokk yi ku ne boo sañoon dangay am teraanga mais est-ce que teraanga ji mbokk yi mooy tax ñu ne ñu ndey tedd nañu est-ce que mooy tax ñu ne ndey texe nañu est-ce que mooy tax ñu ne ñu ndey mucc nañu kon loolu mu ngi ci loxoy borom bi subhaanahu wa taala mbokk mi teewlu safina gis nga suñu boroom dafa ñu bind ci toxantel mani maniyu boobu di ndox dara amu ci suñu borom di ko waajal dugal ko fi mu ko dugal étape ya mu fa toog yëpp buñ ko doon détaillé du fi xaj waaye ba benn waxtu mu ne ah lii day fi mu toll ci étape bii ëffal leen ma ci roox ñu def ci roox fa mu toll ci étape mu ne bindal leen ma ndax kii kuy dundale walla du dund maanaam ñaati at lay def bindal leen ma moom ku texe la walla kuy texe di lay doon bindal leen ma wërsëgam yooyu yëpp suñu boroom xam na ko ba booy ñëw dañuy xam ne yow diir bii nga fi war a def sa wërsëg nii la war a tol sak wér sak wéradi nii la sak am sak ñàkk nii lay demee sa dund li nga fiy sax ba ba ngay génn àdduna nii lay demee boo fi jógee ci anam yi nga fiy jógee suñu boroom bind na yooyu yëpp jox ko malaaka ko téel ma ko lii mooy dundam kon mbokk yi nañu delloo sewaat suñu bopp ci yàlla mooy nañu gëm yàlla gëm dogalam ne wërsëg wi mu bind ci yow bind na ko ba noppi waaye firiwul na nag nga toog yaafus doo yëngatu doo def dara mais nangu dogal gi moo lay wane ne looy sàkku rekk sàkku ko avec dignité ci ning ko war sàkkoo sàkkoo ko ci nii la diine jàngale na booy fàggu fàggool ci anam bii waaye anam ko fi baaxul anam bi baaxul anam bii baaxul loo war a jot lu war a egsi dana egsi kenn mënu ko téye ndax suñu borom dogal na ko moo xam at yi dafa gudd lool moo xam at yi dafa gàtt lool ku si ne li nga war a jot inchaa allahu dina ñëw lu mu tar-tar lu mu diis diis dana ñëw kon suñu borom subhaanahu wa noppi na ax ñun wërsëg yi bind na ko ba noppi kon doom aadama bi li ko war mooy mu delloo xelam ci borom bi subhaanahu wa taala nga bañ a jël kenn yaakaar ne moo yor sa wërsëg bu dul moom dara du dox waaye kii yor wërsëg yi kenn rek la muy borom bi walillahi xazainu samawati wal ard te moom yàlla moom yabsutu wa yaqbid léeg mu yaatal léeg-léeg mu xatal kon doomu aadama bi war na xam ne suñu boroom noppi na kon li des rek mooy yëngatu bàyyi ci loxol boroom bi gis nga wërsëg yooyu moo lay wan xattaa ñi dul nit yàlla joxu leen xel mi mu jox doomu aadama sax seen wërsëg yàlla bind na ko kon nag bu ñu dem ci loo xam ne daf ñuy alak ci jël loo xamante ne amul sécurité ndax lislaam dafa fonk bakkenu doom aadama ndax booy tukki dem jël loo xamante ne musiba yi yin ci war a séntu ci ay musiba moo ëpp fuuf liñ ci yaakaar ci mucc kon lislaam ne la jaratu ko bàyyil risque yi moo ëpp gaal gi ngay jël gaal am na sécurité gaal am na sécurité waaye am na nu gaal di tëdde dootul am sécurité gis nga waxuma la sax gaal yi ngay gis nga xam na ay gale marée la doon doon maanaa dem haute mer ñi dafa def ay fan ci biir géej xattaa jige weer yor fa seen lépp kon ñoom demuñu traversé ay océan foo xamante ne garañ dafay jóg muy ngelaw yu mag yi di ay tempête waaye gaal yu ndaw yi sax nga xam ne gaalu joow yi la yooyu dafa am sécurité mooy lan mooy ñoom xam nañ fan lañ war a yem ax ah, nañ leen koy jëfandikoo waaye bu fekkee nag danga bëgg dem continent ak continent traversé yoo xamante ne maar day taali bu boobaa nag insécurité day am amoo lu la couvrir ci sedd bi ci taw bi bu dee taw ci ngelaw yi ci laneen amuloo koo xam ne boo feebaree mën na la toppatoo taxawu la na mu jaadoo yooyu yëpp insécurité la kon sa essence bi ngay yor parce que fa ngay jëm dune dama jóge fii jëm fële fii nga jóge jëm fële waaye réer bi daf ci yomb te daf ci bari lool ndax ña say dem ñenn ñi GPS la yor te am na foo xam ne boo fa tolloo lay jafe-jafe mën na ñëw ba dootoo mën xam fan nga fiite fan nga situé sécurité ñëw na mooy waral ngay tourner autour la nga yaakaaroon ne soixante litres mën na ko def boo moytul nga def fa cent vingt boo defaatee lu ni mel noonu boo yi bu yàggee la nga yoroon ci essence dana jeex niki noonu dund gi kazalik dund gi kazalik kon yooyu yëpp nag lislaam ne la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen soob seen loxo ci lu leen di alak kon yooyu bu ko nit ki xamee ba noppi nag mu ne zaman fu foog ma dem yooyu moo tax ñi ngay dégg ñu naan diw dafa xaru si loolu foofu lañ koy teg parce que l'islam ne na la bul soob sa loxo ci lu lay alak benn condition yaakaar amul te sax même boo amoon boo demoon demuloo mucc sa la nga doon wuti boo demee ñu téewaat la def la ci ay camp gis nga jamono bi ñu leen di rapatrier waat di leen delloo sewaat seen réew bu dul loola ñu bàyyi la ci camp bi ba kañ bu ngeen dee téeméer boobu ngeen moytul kenn moo ciy génn ñu bàyyi ko mu dem ñii boo génnee daw dugg ci réew mi yaa ngi daw di nëbbatu gauche droite fu ne nga finaan fi ci biti ci nàngam kon l'islam condition yooyu loolu lay wax ni ñii daal ñu ngi soob seen loxo ci leen di alak parce que xam nga ni condition yi réewinirul bul ko yemaale ki jël otoom jëm dëkk sàngam ki jël avion jëm dëkk sàngam ki jël bato jëm dëkk sàngam bokkul kon yooyu doomu aadama bi war na ci bàyyi xel yooyu yëpp nag mën nga am ay jàngat pression sociale bi tegul ci kaw jeunesse bi moom laa wax bi passé ñu bañ di gënaatle njaboot gi ah yow day yaa may jox yaa gën diw yow day yaa mel nii yaa gën diw mais loolu bu yàggee ci moom amul tuuti ndëgër bu boobaa rek dafay sede ci pression yi xale yu bari moo tax ngay gis ñii ñu ngi ci drogue bi ñii ñu ngi ci leneen di jël ay alalu jàmbur bu ñu demee ba kiwul vol à main armée lay doon ñenn ñi lu waay def parce que pour ñoom léegi daal teddange réussit mooy amal xaalis te xaalis nag wax dëgg yàlla moyen la rek waaye du objectif mbokk yi moyen la rek waaye nekkul objectif nañu góorgóorlu suñu boroom ëllëg yonent bi ne li muy laaj mooy kan moo gën ragal yàlla ci yéen boroom jikko ju rafet mais du kan moo ëpp alal neex na lool faj say aajo faj say soxla waaye nag wutin wi dafa am solo mbokk yi te entourage bi nañu dimbali xale yi entourage bi nag kenn jiitu ci état il faut que nag njiit yi loolu mooy am ci kër yi mooy am ci famille yi ñu am ñoo xamante ne ay boroomu xel lañu di xelaat ay stratégie ni lii dey bu ma ko tegee njaboot gi a ah, danañ génn ci nàngam mais bulaa booba dag leen defal formation de base di waxtaan ak ñoom di leen tegti di leen orienté bu boobaa duñu gaaw sànk duñu gaaw réer moo taxoon yonente bi ne al muminu daai al al muminu al xawiyu xayrun wa axab ila allahi min al mumin daif jullit bi am résistance moo gënal yàlla ku amul résistance mooy pas-pas pas-pas si nan koo xamante ne danaan ñëpp a ngi def lii foog ma def ko ñëpp am nañ foog ma am nit ñi fii lañ daw jëm lii mooy ala modd foog ma def ko lii mooy xaw si jamono déedéet jullit bi dafay nattale di xool lu tegu sa kanam nga ne ah lii dey moo fi tegu lii moo fi tegu nga pëse leen lii bu ma ko toppee mën na am yadaange est ce que jar na ko wala jaru ko nga ne jaru ko naa oññeku lii dey bu ma ko toppee du ma am yadaange ku ko dégg dana ci bëgg dana ma encourager même bu ma eggul danañ xam ne tegu ci yoonu njub est ce que jar na ko wala jaru ko nga ne jar na ko naa dem lu xew ma ne ëllëg yàlla loolu la dogal ci man waaye ala kulli xaal foog ma am tey tey tey foog ma tekki bu dee baatu tekki bi mooy damay am alal tey tey tey wallahi loolu du tekki mbokk yi dañu góorgóorlu ci jikko jikko nag mooy waral ci jaboote moo xam rang bu la yàlla jox président nga nga yaa xam góorgóorlu ci njaboot gi nga di leen xelaatal ndax ndaw am na foo xam ne xelam du fa egg bëgg-bëgg moo fay ne moom danaa ndaw la tollu naa ci war naa am war naa war naa waaye mag mi nga xamante ne am na fu mu jaar dana ko mën a xàllal yoon wi nekk ah nii day boo ko defee feex at sàngam feex jamono sàngam nañu organiser waat xale yi mbokk yi nañu leen encourager ku ci am dara ñu boole leen ñu daan seen doole dimbali leen ci yu bare bare bare mën nañ ci yëngatu ci biir réew mi ndax Europe gële ah demeetul noonu de ah demeetul noonu ndax jamono ya mu daan doon nekkatul léegi waaye jamono yi ñi fay dem ñëpp dinañ sonn lool boo xoolee quarante wala vingt pour cent rek ngay gis ñu nekk ci ay entreprise yoo xam ne tanee na lëf ne di yëngatu waaye ñu ci bare bare bari ñu ngi am ay këyit en Europe waaye ñu ngi semence technique dañ leen di toog loo weeru jot ñu am luñ leen jox ñii jox nañu leen dara ñu dem jox leen ay intérêt parce que ñu leen supporter chômage ba na mu mel léegi dafa jéggi dayoo kon ndëkk tekkiwul ne fu yàlla def wërsëgu nit di nga ko jëli mais li ñuy bañ te duñ ci encouragé xale yi mooy forcing bi ne fokk géej gi rek wala boog ma dem wuy ji sama boroom mu mel ni loolu phénomène la rek bu xew mais teguwul ci xel mantiqiyan logiquement boo xoolee di nga xam ne menaces yi risques yi dafa bari te lislaam jàngalu la loolu le kon nag nañu ci góor góorlu bu baax loolu luñ doon laytaaye la pour gën a ñaax xale yi ndax àddina bi jamono bii daal at mële ba ñu ngi yaakaar dugg ci beneen at te ba tey jii dëkk bi àddina bi ñu ngi ci crise ñu ngi ci ay xat-xat kon ndëkk dafa laaj sago mbokk yi dafa laaj sago mooy àndax dal dal gu àndax patience waaye nag di àndax di xelaat di xool ndax lii jar na ko wala jaru ko bokk ci ci xelaat boobule mooy di doylu di xool sa économie moo taxoon yoko yonent bi ne képp kuy économisé doo ñàkk képp kuy économiser yonent bi ne doo ñàkk waaw ma maa ala man ixtasada la wax kuy économiser doo ñàkk kon su ko defee la ngay am nga di ko kurkural di xool nan ngay defee am na jamono fu muy toll nga ne ah man dey am naa dàll yoo xamante ne fu ma bëgg a dem man na fa dem waaye dàll yële de rafet na lool mu ngi jar juróomi junni juróom-ñaari junni waaye est jamono bii man li ma yor may na ma loolu waaw walla déet nga ne déedéet bëgg naa ko de waaye mayeguma ko doylu mooy ñëw foofu waaw diw mii de li mu sol bëgg naa ko de lii lay jar waaye est-ce que jamono bii li may ama xas néew may na ma ko wala déet nga ne mayeguma ko de naa muñ rek kon gis nga yonente bi doon wax ne alqanaatu kanzun la yafna doylu trésor la bu dul jeex mbokk yi il faut que jeunesse bi tàmma doylu waaye nag jeunesse bi bu laa doylu fokk waajur yi fokk kilifa yi doylu waaye bu fekkee ndaw li dafa am luñ ko wan gëmloo ne ko lii moo baax koo xamante ne nii gisoo ko mu jël yoon wu ñëpp mën a wax ne ëskay yoon wu baax mu xëy yor nangam di ko pasar pasaree ñi àll réew mi la wala kii jël na kees jàmbur wala kii def na nangam moo fi tabax lii moo fi def lii moo fi def lii mais ndaw li tamit danaan kii sama moroom la kii maa ko gën a jàng maa ko gën a xam àddina maa ko nangam ma li mu yor war naa ko mën a yor kon it foog ñu góorgóorlu kilifa yi justice sociale ñu bàyyi ko xel mooy ñi tegu ci yoonu njub ñu encouragé leen mais ñii def sofaan ñu won leen ne sofaan ngeen nekk loolu la Abu Bakrin Sadiq waxoon ci discours am ba ba mu faloo ne fal ngeen ma de wax la mu wax yépp waaye ne képp ku ñàkk doole ci yéen na ko am doole la ci man danaa fexe ba bu dëgg buñ ko jëloon ci moom ma delloo ko ko waaye képp ku am doole ci yéen yaakaar dafa am doole ba di ko jëfandikoo ci kaw ñeneen ñiit doole jooj dinaa ko nangu delloo ko seeni boroom kon justice sociale foog mu am mbokk yi yooyu nag ay tëralin foog ñuy wan yoon wi xale yi li baax loolu moo tax lislaam indi ay bunt lu mel ni zakat ngir jàppale doom aadama yi ngir suqali leen économiquement def ay projet zakat loolu moo ko tax a jóg nga ne zakat bii dey gis naa ne ñii bu ma leen ko joxee wala diw mi bu ma ko joxee mën na suqalaku bu ma ko seetaanee mën na nekk si ay xat-xat nga jàppale ko ci loolu mu am lu mu jàpp di yëngatu ndànk-ndànk bu yàggee it njabootam seen xel dal kaneen ku si xaj xel xelam dal ba ker muy manit moom di suqali kaneen noonu la ñu war man def loolu tamit dafay commencer kenn ku ne ci ñun lu la yàlla dénk bàyyil xel ñi ci des lu la yàlla dénk rek bàyyil xel ñi ci des soo amee ñaar di jëfandikoo benn bi jàppal na beneen bi am na seeni boroom rawatina nag ku yor ñaar ñett ñeent juróom ba fukk kii ci sa boor yorul benn amaana mag la amaana rakk la amaana jarbaat la amaana dëkkandoo la yaa ngi yor yu dul jeex te moom yorul benn yooyu tamit ku ci nekk yàlla dafay bëgg ngay gestu ñi mu la booleel muy nattu ci yow yooyu buñ ko defee rek yàlla mën nañu defal suturu yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 kon mbokk yi fi ñu toll ci jamono nañu góorgóorlu rek ci muñ indi ñaari ton ay laaj ba ci ñett ci lii des si waxtu wi ci julli ndax julli mooy lépp te di jéggalu bu baax ci ñooñu waroon nañ ko indi ci émission yéle waaye gis nga xat-xat yi rek émission yi ndax yi xew ci jamono ñu ci waxtaan di fàttalinte rek ndax diine moomel noonu bu ñu ñëwee ci wàllu ndollante ci julli lay laaj dafay julli dolli taxawaay bu dee taxawaay la walla toogaay wala rukon wala sujjóot maanaam ndollante daal si julli kon ndollante boobu nga dolli ci julli rekk jàppal ni am na lu ci ëpp bu fekkente ne loolu nga def danga ko fàttale ko si saa si danga koy joyanti waaye bu weesee kon loolu ndollante am na rek sujjoot baada salaam moom mooy ñëw nga duum dolli taxawaay dolli toogaay rukon la wala sujjoot ndollante daal bu amee rek da ngay sujjoot baada salaam te sujjoot boobu nag la mu say laaj mooy ndax dangay ngay sëlmalaat aha moo tax baada salaam da ngay sëlmal ba noppi rob def ñaari sujjóoti boobaa nga jóg taayawaat sëlmal kon ñaari sëlmal lay am moo tax mu nekk baada salaam nekk baada salaam beneen bi kii moom dafa ne bu fekkente ne dafay julli tisbaar bu dee tisbaar la wala même julli ñeenti rak ñaar da ngay toog taay jógaat indi ñaar mu def ñaar jotul toog mu jóg taxaw bi mu taxawee xelam dem ci ne dafa waroon taaya kon wàññi ñëw na muy taaya bi la bàyyi su la kon moom dafay continuer ci julli yi te lii gën mooy bu xësee ba taxaw du dellu sewaat di toog di taaya parce que mu ngi taxaw te taxawaay boobu farata la dafa war a jàng saa dafa war a jàng faatiha dafa war a jàng fatiha fatiha bi farata la kon du ko fa bàyyi di dellu sewaat ci sunna muy taaya boo ba taxaw bu dee taxawaguloo nag manaa danga jóge si sujjóot bi rek bëgg a dem rek sa xel dem ci boobu bàyyeeguloo suuf si maanaa sa yaram te xalokoowul ak suuf si maanaa sa loxo yi sa oom yi kon jógaguloo jóg buñ ko waxee rek mooy sa loxo yi sa tànk oom yi bàyyi na suuf ñu ne jóg nga léegi waaye bu fekkee jógaguloo nag dangay ngay dellu se taaya dara waru la waaye bu fekkee jóg nga nag ba dem dootoo dellu si kon jàppal ne wàññi nga taaya foofu it di la xamal ne wàññi boobu bul ne sama julli yàqu na damay baamuwaat déedéet continuer sa julli waaye jàppal ne taaya moom andiwuloo ko ku ko andiwul wàññi nga nga dem ba julli gi jeex indi nga yeneen ñaari ràkk yi bi nga indee ñeneen ñaar ràkk yi nag nga xam ne yaa ngi ci jeexantalu julli gi taaya nga ba noppi bul sëlmal foofa ngay sujoote ñaari sujoot yi toog taayawaat door a sëlmal nag muy benn sëlmal la am muy qabla salaam muy xabla salaam góor gi Amadou Sow jërëjëf macha allah kon foofu noonu ngay def parce que wàññente la ma tënkal la ne la imma ñaar yokk walla wàññi danañ ci ñëwaat gën la ko leeral yan lañuy ñuy sujootal ak yan lañu dul sujootal parce que julli loolu daf ci am solo nga xam lan mooy li nga xamante ne soo ko bàyyee sujjóot daf lay war am na ci julli yoo xam ne boo ko bàyyee sujjóot du la war dinañ ci ñëw incha allahu rabbi ci xaj na émission bii di ñëw wala ba ca topp si kàntanu yàlla kon sujjóot ñaar imma da nga yokk imma da nga wàññi su dee ndollante moo am rek ndollante moo am rek kon yow baada salaam la maanaam ginnaaw sëlmal ba noppi nga door a rot sujjoot ñaari sujjoot sëgg sujjoot ñaari sujjoot toog taayawaat sëlmalaat loolu mooy baada salaam parce que da dolli dolli ba nag du loo tey njuumte la bu dee njuumte baax na waaye bu dee loo tey nag tey tey dolli ci julli moom julli ga dafay yàqu bu dee wàññinte la mooy julli gi matul kon boo demee ba taaya bu dee kay wees na mënuloo ko dabbu dem ba taaya sëlmal rek moo des nga sujoot ñaari sujoot jóg taayawaat ginnaaw sujoot yu ne da ngay taayawaat door a sëlmal foofu benn sëlmal layam loolu mooy xabla salaam kon nag loolu buñ ko toppee yàlla mën nañu dimbali ba njuumte buy am mën nañ koo defaraat ci biir julli gi te du laaj baamu ndax sujjóot dafa am solo ci julli sujjóotu sahwi mooy sujjóotu jamaj li koy réparé yooyu yu jar a xam la te loolu nag moo lay indi nga xam lan mooy faratay julli lan mooy sunni julli lan mooy ngëneeli julli nga xam farata yi lan mooy seen àtte xam sunna yi lan mooy seen àtte xam ngëneel yi lan mooy seen àtte loolu boo ko xamee rek ba lu ci ne nga wottu ko yàlla mën na la dimbali ba boo jullee di nga am yaakaar kon dëkk li des ci waxtu yi bariwul ñu ubbi rek bu ñu amee ñaar rekk doyloo ko

di topp farata yi di topp sunna yi ba buñ la laajee nga mën a wax farata yi mën a wax sunna yi ndax njaboot giit yaa leen jaboote war nga xam attey farata te ku laa xam attey farata xam lan mooy farata ba noppi war ngaa xam attey sunna ku laa xam attey sunna xam lan mooy sunna ba noppi war ngaa xam attey ngëneel te ku laa xam attey ngëneel xam lan mooy ngëneel ba noppi te yooyu nag incha allah ci émission yi di ñëw ci laaj bi danañ si sukkandiku indiwaat yooyu jaaroon na fi naa mu ngi yàgg ndax amaana kiy déglu fàtte na amaana am na kuy déglu déglu bu bees te yooyu soxla na ko kon nag su ko defee diine daal noonu rekk la dangay ngay nafar ndax bés bu jot yaa ngi julli te saa su ne nag jamat mën na am ndax doom aadama xel la rekk xel mi léeg lekk mu am lu ci jaar fàtte am jax-jaxal day am yooyu yëpp day am kon ku xës ba ne ci julli rek war nga xam nan ngay joyantee sa julli kon dëkk nañu ñaanaat yàlla bu baax mbokk yi ci mbas mi nga xamante ni mu ngi fi ba tey te xaw a tee gis ngeen tey nii ministre bi waxe kilifa yi waxe ko ñu ajandi lépp loo xamante ni daje la dajaloo la ci place publique yi war a sol masque yi tamit moo xam foo mën a nekk mesure de barrière yi ñu sàmm wante ak moom ñu baña bàyyeeku waaye it bañ a bàyyeeku nañu góor góorgóorlu suñu autorités yi tamit nañ ñu dimmali ñoom it ci loolu ndax bu ñu fàttale koo yàggul dara bi ñu tolloo ci mbir yi am na fu ñu tollu woon bàyyeeku bi ci ñoom la tàmbalee parce que ku ci am loo inauguré ku ci am fooy dem mbooloo dar la mais loolu rassemblement la yow mii ne bu leen def nàngam bu leen ko def waxkat ba daf lay wax ne la boo demee ci kër boroom kër ga di tëgg boroom kër ga di tëgg njaboot ga di fecc kon bul yedda njaboot gi parce que boroom kër gi moo tëgg waaw kon nag boo bëggul njaboot gi fecc bul tëgg kon dëgg nañu bàyyi rassemblement yi buñ yàlla dimbalee mbas mi jóge fi kay ñu delluwaat ci yitte waaye bu ma ne damay dem bërëb sàngam ah tur wa nu ma ko tuddee ma dem mbooloo topp ma takkuñu masque yi laalante bi jonjante bi yooyu yëpp am nga bëgg na nekk yéen bu leen dajaloo loolu xel nangu ko kon suñu autorité étatique yi am ngeen si part de responsabilité bu mag a mag a mag parce que loolu da ngeen bàyyi seen mission nañu góorgóorlu te ku ne bañ a wax ne mbas mi amul xoolal ñi ci génn àdduna ñëpp yàlla nag mooy rey bakkan yi waaye am na fu mu koy jaarale xoolal ñi mu dal ñu testé positive ñu dem xam nañ la ñuy jànkoonteel ñooñu kenn du toog neen amul kon nag mbir mi il faut que ku si nekk def ko séy fi bopp ñi war a wax nañu wax ñu war a sensibiliser si njaboot gi ci daje yin war a daje yooyu yëpp ku si nekk koo mën a waxal nga wax moom dem bu mënul ñàkk nag génn doxi soxla say muraada fexe nag jël matuwaay yi jël matuwaay yi masque yi nañu koy yor gel yi boo ko yoruleet boo dellu si si kër gi na ko jël la raxas sa loxo yi yooyu bu ñu ko defee rek suñu borom bi ah mën nañu xettali mën nañu musal bu baax mbokk yi ndax loolu bu ñëwee faagaagal la nërmel la te yow dafa am ñu yaakaar ci yow ñooña daanaka seen yaakaar dafay xaw a sooxe seen xel du dal parce que yow yaay kii leen doon taxaw kon dëkk ku si ne jëlal mbir mi def ko sa mbir nga bañ ko jël rekk ne ah mbir mi de amul solo waaw mbir mi de amul solo ndax nangam ndax nangam déedéet kon nag nañu góorlu bu baax te defee yàlla mën nañu jàppale bu baax kon nag su ko defee di jaajëfal ñépp rek yan yàlla mu defal ñu tawfiix mag ñi yàlla sàmma leen bu baax a baax ñi am jàngoro yoo xamante ne mu ngi ci ñoom yal na leen yàlla sàmm ottu leen ba nga xamante ne dara du leen gaar incha allah. ndax mbir boo xamagul foo koy jaar li la war mooy nga moytu rekk jël say matuwaay soo ko defee rek yàlla mën nañu dimbali bu baax a baax ndax yàlla suturaam yaatu na nag nañu ñaan kon nag su ko defee waxtu wi daanaka mu ngi noonu di jaajëfal ñépp di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm sutura su sax daa iman ñi tawat ci kër yi hôpitaux yal leen yàlla saafara di leen dox daje incha allah ba aljuma bi di ñëw ci seen beneen waxtaan ci xam sa diine wassalaamu aleykum wa rahmatullahi